bismillahi rahmaani rahim xam ngeen ni yàlla bi mu bindee mbindeef yépp moom yàlla moo bind mbindeef yépp moo bind nit bind jinne yi bind malayka yi bind jur gi bind àdduna bind asamaan yi bind lépp ba muy door bind doomu aadama nag xam ngeen ne dafa wax malayka yépp na ngeen ñëw sujjóot fi kanamam mooy màggal ko jox ko cër malayka yëpp la dajale ne leen kaay leen sujootal doomu aadama mooy wa id qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kaana min alkafirin wa qulna ya aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan xaytu chituma mooy yàlla dafa bind doomu aadama <coughs> wax malayka yëpp ne ñëw leen sujjóot fi kanamam sujjóot bi sujjóotu teranga la ak worma ak wane ne ñoom ñëpp ñu ngi koy jox cër ñu ngi koy màggal moom doomu aadama ka bañoon nag muy ki ñuy wax iblis bañ gim bañ yàlla da ko dàq ci yërmandeem yàlla nett li na lam waxanteeg moom ci alxuraan wax na ne dane ko faxruj minha génnal yow tey dàq naa la te iblis kat wax nañ ni kaw suuf si mënoo fee teg sa baaraam lu toll nii maanaam sa sa sa loxo mënu ko teg foo xam ne laaloo fu mu su jot wax na ne jaamu na yàlla juróom lu ëpp juróom-ñaar nangam bi ko yàlla waxee kaay jox cër doomu aadama màggal ko mu lànk ci la ko yàlla génne faxruj minha fa innaka rajim wa inna alayka laanata ila yawmi ddin tegut yëmut ci daq ko rek waaye da caa boole rëbb ko rëbb moo xam ni dog ilaa yawmi din du dog mooy ilaa yawmi din mënatoo am sama yërmande yow iblis ndax li nga lànk su jootal doomu aadama iblis ñaan ko dara ne ko fa andir ni ilaa yawmi yub'asuna dama bëgg nga bàyyi ma fi nag keroog bis penc di taxaw na ba adduna bi tukki mu ko ñaanee loolu moom iblis suñ borom may ko ko qaala innaka min al mundarina ilaa yawmi al waqti al maalum te yéen seetlu foofu yërmaane yàlla ba tey iblis moom la yàlla gën a mere ci jaam ñi te teewul bi mu ko ñaanee fii gis nga mu may ko li mu ko ñaan iblis wax ko ne ko nag incha allahu mbindeef yi nga xam ne ñoom nga teral nii muy doomu aadama yi fonk leen ba nungoo ku ku ñoom duma leen bàyyi ci seen jàmm dinaa leen dikk ci wet gu ne di leen moyloo yàlla ak di leen fàttaloo sa xéwal yooyu nga leen xéwale yàlla teewul aadama na adama xam ngeen ne da ko wax ne ko yow dëkkal àjjana uskun anta wa zawjukal janna wa kulaa minha ragadan xaytu chituma maanaam biir àjjanaa ngi nii xéwal yaa ngi nii lu neex def leen ci ci biir àjjana ci loolu xam ngeen sun suñu borom yëmut ci jooju teranga bi mu ko bindee ba noppi dafa wax ne ruuxam ruux goo xam ne ko askan ci boppam la def ci biir doomu aadama te li wax ne fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi maanaam ruuxu ak suñu borom du lu woyof loolu nag te te tekki wut ne maanaam maanaam daray de ko ci wala jëmmi yàlla ja subhanahu wa taala taxul ñu wax waaye ruux goo xam ne yàllaa ko sàkk def ko ci biir doomu aadama mu wuuteeg ruux yi nekk ci yeneen mbindeef yi ci des yëpp ruux gi nekk ci doomu aadama dafa jege yàlla te bàyyi ko ca pay kawee kawe ya fa sunu borom tabaraka wa taala wuuteeg yeneen ruux yi nga xam ne moo nekk ci yeneen bi nekk xar yeeg ba yeeg yi ci des loolu it di teraanga ju rëy mooy mu bind la jël ak xam moom suñu borom goo xam ne ko askan ci boppam xam nga ku toll ne suñu borom bu ne sama ruux laa def ci yow loolu lu rëy ngi noonu te loolu wax na ko lu bare bari ci alxuraan yëmut ci loolu mbooleem lim bind lépp da ko tàggatal doomu wax na ci alxuraan ne allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda wa anzala min alsamai maan fa axraja bihi min altamarati rizqan lakum maanaam yàlla moo bind asamaan si bind suuf si ni ndox mi di di tawe tëralin woowu moom moo ko tëral système bi mu def ba ndox di di taw waxtu ne di wàcc ci suuf si di rogalaat dem ca géej jant bi tàppe ci di nga am si dem ci asamaan si mu doonaat ab taw wàcc ci kaw suuf si loolu yàlla moo ko tërale noonu neen dama ko def nag risqan lakum mu nekk xéewal ak wërsëg ci yéen boo xam ne dangeen koy xéewloo wa sax saxara lakumul fulka li tajriya fil baxri bi amrihi masalan xeeti gaal yi itam maa leen ko tàggatal gaal du dara lu muy aw dénk yow doomu aadama ji boo taxawee ci kaw ndox mi dangay dugg ci suuf ci ndox mi yàlla nag def dénk woowu mën a taxaw ci kaw ndox mi may la yow doomu aadama nga mën a dugg ci dénk woowu muy muy muy gaal gi dox ci biir ndox mi fu la neexee jën yi ci biir it lu la ci neex jàpp di xew do dana danaa si danaa ci agsi ci loolu wa saxara la ko mu samsa wal qamara daa i bay ni yàlla tàggatal la jant bi itam jant bi yàlla nu ko tàggatal muy loo xam ne mënta ñàkk ci kaw suuf fi ne jant bi bu amutoon rek bu amutoon wala ceeñeer yi muy yónnee tey bu taxawoon ay fan ñu nekk ci suuf si yëpp dañuy faatu ndax bu suuf si day way def glace ndax ceeñeer yi moo tee moo tax nu man fe nekk jant bi bari na lum nuy jariñ nun doomu aadama ndax xam ngeen ne itam xeeti meññet yi sax ngir mu meññ mel na mu war a mel loolu jant bi da cee am lum ci def lu am solo kon yàlla moo nu tàggatal jant bi yëmul ci loolu tàggatal nu itam weer wi wa saxara lakumul layla wan nahaara yëmul ci loolu guddeeg bëccëg it yàlla tàggatal na ko ñun doomu aadama mooy fi mu ne bu guddi amutoon bëccëg rek am foo dalloo doo ko am loolu yàlla wax ci alxuraan su fekkoon itam bëccëg rek am nga xam ne bu fekkoon guddi rek am nga xam bëccëg am it boo niitoo ak loo xam doo xam li ngay def lu mu doon ndax lépp di lëndëm këris yàlla tàggatal nu nag guddeeg bëccëg muy am léeg mu am waxtu woo xam ne waxtu noppalu la muy guddi am waxtu woo xam ne waxtu dof ay soxla la ak lijjanti loo xewloo ak loo yóbbu sa ngewot muy bëccëg wa aataakum min kulli ma saaltumoo mboolem lu lu ngeen bëgg rek wala lu ngeen di sak wala lu ngeen yittewoo yàlla jox na leen ko moo tax mu teg ci ne wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha masalan xéewal yàlla yi bu ko doon jéem a wàññi ak jéem a lim du ngeen ko man yëmul ci loolu bërëb yu baree bari ci alquran gis nga wala na walan aama xalaqaha lakum jur gii nii yàlla la ko tàggatal bind ko ngir yow sàkk ko ngir yow ngir nga di ci xewlu te xam nga ne jur gi am na ci yoo xam ne ñoo la parce que nag nag moo la ëpp doole yow doomu aadama fuuf waaye yàlla tàggatal na la ko nga mën koo jàpp di ko jëfandikoo di ci bay di ci def say soxla di ci rat soow ak meew di ci di ko naan doo yem ci loolu bu ne neexee nga rendi ko lekk te yéen a bokk borom même borom yéen a ko bokk yenn bokk benn dara nag yàlla la sàkk sàkk yàlla tàggatal na ko moom jur gépp nag fiha difun lakum fiha difun wa manafiu wa minha taakuluna wa lakum fiha jamalun xiina turixuuna wa xiina tasraxuuna wa taxmilu atqaalakum ila baladin lam takunu baaligihi illa bi shiqi lanfus yàlla tàggatan la jur gi ñu mën nga mën di ci war di ci suuf say bagage fu la neex nga dem ci ci àdduna inna rabbakum la rauf rahim wal xayla wal bigaala wal xamira li tarkabuha yàlla defal la fas yeeg mbaam yeeg lu la ci neex war lu la neex takk ko saret gis nga li xew léegi nga xam ne gaa ñi saret lañ koy takk yor seenu xiir di dóor dóor yu metti yàlla la ko tàggatal yéen bokk benn borom gëne woo ko dara yow da ngay doomu aadama muy aw fas rek nga war ko yàlla yëmul ci loolu huwa alladi anzala min as-samaa'i maa'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fiihi tusimuuna masalan yàlla defal leen ndox mi moo xam ni dafa yem ci seenu bëgg ak seenu naan fi ne ndox ni nga koy gisee nii muy woyof ci sa kanam ak yomb ci sa kanam boo ko amutoon ñetti fan moom ndox kenn du xam luy nul te sa yitte jëpp ci wut lay ne yàlla jàpp ndal la la ko nag mu yomb la te it diisut bopp fi ne bu bu diis moom qualité ndox mi comme diw doo ko mën a naan bu gënoon a bu ëppit loo ci naan du la doy yàlla def ko ba mu tollook mm, sa sa sa bëgg ak li baax ci yow moom ndox nga ci naan weesu maanaam ñu di ci suuxat garab yi itam garab yi itam jur gi nga yor di leen sàmm bëgg buñ màggee nga xewloo leen jur googu ci ci ñoom ci garab gi nga xam ne moom nga suuxati ndox mi ci lañ ci lañuy xewlu mooy minhu sajarun fiihi tusimuna yumbitu lakum bihi zaraa wa zaytuna wa naxiila wal anaaba wa mi kulli tamaraat yàlla defal la lépp di ñor mbay mi lépp mu di ko ñoral ngir yow doomu aadama li la ñoral xeet yi arasin yi xeeti tàndarma yeeg xeeti fruits yi xeeti légumes yi yëpp meññet yëpp yàlla defal la ko yow doomu adama nga mën koo jëfandikoo nu la neexee loolu wax na ko ba tey ci alxuraan yi mu leen tàggatal dem mbindeef yëpp xam ngeen ne yàlla da koo tàggatal doomu aadama am na ci yoo xam ni dañ leen liggéeyal te doo ko yëg am yoo xam ne yàlla yaay dem jëfandikoo ñu doog laa mën a liggéeyal géej gi gis nga wa saxara huwa alladi saxara albaxra li taakulu minhu laxman tariyan wa tastaxriju minhu xilyatan talbasuunaha masalan géej gi tey jën yi ñuy jëf yi jëfandikoo ak xéwal yu bare bari ci li ñuy lekk ci géej gi lañ ko jële yàlla tàggatal na ko ba nga mën a dugg ci biir géej jël ci xéwal yi ci ne yépp di ko jëfandikoo nu la neexee wa alqaa fil ardi rawaasiya an tamiida bikum maanaam suuf si nga toog fi ne mi ngi ci daw bu xiir waaye yow yigoo ko li ko tax mooy ay montagne la ko téye comme pont ni muy téye aw dénk ba nga xam ne du du du ratax noonu la montagne yi téye suuf si ba suuf si yow boo ci nekkee doo yëg ne mi ngi daw fekk daw bu xiir ci la nekk loolu lépp yàlla defal la ko yow doomu aadama defal la ak njaboot defal la ay doom defal la kër ngay solu ni mu ko waxee ci alquran jaala lakum mimma xalaqa zilaalan wa jaala lakum min al jibaali aknaanan wa jaxla lakum sarabila taqikumul xar wa sarabila taqikum basakum yàlla defal la nga mën a ay ker yoo xam ne ci mën a noppalu ci kaw suuf defal la fooy mën a dugg di fa noppalu ay néeg wala ci biir montagne ñu di ko gas am yoo xam ne ñu ko gas di ko def ay tëb wutal la mbubb mooy sol yow doomu aadama jur gi ci des xam nga amuñu ko mu mujj sax loolu wax na ko wax na ci lu bari bari ci alquran waaye dafa mujj wax ne wa saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi lardi jamian minhu lépp li nekk fi kaw suuf ak lépp li nekk ci asamaan yi yàlla tàggatal na la ko yow doomu aadama nga di ko jëfandikoo nu la neexe wa asbaxa alaykum niamahu zahiratan wa batinatan muy ay xéewal yoo xam ne dala ko sot yenn yi fës na ba nga gis ko yenn yi gisoo ko yëmul ci loolu moom suñu borom dafa wax ci alquran ne te laa teral teraanga jim la teral ni da ko wax ci alxuraan te lii may wax ni yéefar yeeg jullit ñi ñëpp ci dugg maanaam ñëpp dugg ci lii wax ni teraanga ji ni yéefar rek jullit ñëpp ci dugg maanaam teraanga jim teraangal doomu aadama jimmi doomu aadama rek en tant que doomu aadama la ko defal mu wax ci alxuraan ne walaqad karram naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxar wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdilan masalan yàlla dafa teral doomu aadama jox leen suuf si ñu dëkke ko di leen wërsëgal xeeti xéewal yoo xam ni kenn mënta xam tolluwaay ba ci bariwaay def leen ñu gën ñu bare bari ci mbindeef yi ci des yëmut ci gën leen waaye dañ leen a jox seenub su ñoom ñe yeneen mbindeef yi dama dama di leen giidee di leen wëlbati fu mu leen neex fu ko neex jëme leen yëmut ci loolu moom suñu boroom dalaa jox li gën a kawe ci àdduna muy am xel yow doomu aadama boo seetloo di nga gis ni li ma waxoon léegi maanaam aw yëkk muy nag moo la ëpp doole fuuf ndax béjjënam yooyu bu mu la ci jam nga faat yàlla jox la xelum nag xel moo xam ne ci ngay mën a tàggate nag wi ba mën koo jëfandikoo di ci bay di ci naan am soow di ci dox say soxla di ci sëf say bagage di dem ak a dikk te bu la neexee nga rend ko lekk mënoo daw fi ne ni fas mën a dawe fas la gën a gaaw fuuf waaye yàlla jox na la xelum tàggat fas woowu ba di ko mën di jëfandikoo di ko war di dox say soxla dem ko a dikk fi ne lu mel ne gileem moo la gën a mën a muñ ab xii ab coona gileem daf ko mën a muñ ab coona xam ngeen ni gileem wax nañ ne mën naa toog ay semaine te du lekk ndax biir bi da ci denc fi ne lekk bu bari lu mat quarante kiloy lekk ak fukk cent vingt litres ndox muñaay muñaayam boobu nag yàlla tàggatal ko doomu aadama ba mu jëfandikoo am xelam xel mi mu ko jox ci la jëfandikoo moom doomu aadama ba di jël gileem di dukkeek moom ci àll yi nga xam ne ndox amu fa àll yu sori sori coono boobu gileem gi di ko yëg te yow doomu aadama yi doo yëg coono yooyu yëmut ci loolu doomu aadama xam ngeen ne mënta naaw ni que picc yi ni ñu naawee dem fu leen neex waaye yàlla defal na ko xel moo xam ne sukkandiku na ci ba liggéey loo xam ne day naaw ni picc yi di ci def ay soxlaam fu ko neex dem doomu aadama xam ngeen ne yurut ay seel wala gaynde ni mu amee doole mën a jàpp lu ne bu la nee nikk doo rëcc loolu doomu aadama amul jooju doole waaye yàlla defal na ko xelum mën a liggéey ay ngànnaay yoo xam ne kum ko dóor doo doo jóg gaynde moomu nga xam ne moo ëpp ñëpp doole fi ne fu ko doomu aadama fital fi ne du jóg yàlla defal la yow sa bët yi dafa li muy gis dafa day tuuti mooy dafa am yu sew yoo xam ne yu sore sore la yoo xam ne doo gis biddiw ya gën a sori fi mën a ko gis am na picc yoo xam ne nag lu mbir sori sori dañ koy séen dañ koy réyal ci seen kanam picc ya xeetu picc yow doomu aadama nag yàlla defal na la xelum nga mën a liggéey jumtukaay bi ñoo xam microscope di ci xool lu sore sore sori loo xam ne sa yi mën a fa àgg nekk noonu it mënoo jegeeñal lu sori maanaam mënoo jegeeñal lu sori ci sa bët waaye yàlla defal na xelum liggéey yow doomu aadama loo xam ni day jegeeñal lu sori nekk noonu ni suñ borom yëmul ci loolu dafa sa yaram wi ni mu ko bindee da cee da ko mooñaale ak kaaraange goo xam ne moom la wax al manaa ci arab ci ci arab yi manaa boobu moo lay aar ci mbooleem virus yi nekk ci jaww ji xam ngeen jaw ji ay doomi jàngoro da bari kay ay virus ak yoo xam ni mën naa rey nit waaye yàlla dafa bind ci doomu aadama li wax manaa loo xam ni mooy tax xeeti wéradi yi nekk ci jaww ji du agsi ci yaram loolu fi ne ñi amee sida xam ngeen ne manaa boobu lañuy lañuy ñàkk suñ ko ñàkkee feebar bu ñëw dee dugg seen yaram nestu ñu bari ay feebar faat yàlla nag moo ñaale doomu aadama yëpp ak kaaraange boobu yëmul ci loolu yàlla def la yow booy doog a juddu doo mën dara doomu aadama buy doog a dara dañ koy defal léppam ndax liir lay doon liir xam nga mënul dara waaye yàlla def ci xolub ndeyam yërmande joo xam ni day jéggi dayoo nga xam ne yaayam yittem yëpp mooy liir bi nekk ci jàmm di ko toppatoo guddi leleg du nelaw ngir toppatoo ko mu yuuxu di ko sonal coono boo xam ne bu fekkoon yaayam amul jooju yërmande ci moom day faatu maanaam ci moom bu fekkoon judd na te yaayam amul ci moom yërmande ci ji nga xam ne moom la yaayam am hmm. day faatu xeeti xéwal yi ma waxoon léegi yëpp nga mën ko dajale xeeti togg bu ne am na léegi yëpp di ay xéwal yoo xam ne yàllaa ko jàngal doomu ko toqal ci xelam xam nga doomu aadama li muy li lépp mi ngi bàyyi ko ci li toq ci sa xel nekk noonu it xeeti gàncax yi nga xam ne dafa rafet ak yi nga xam ne dafa am ay meññet yooyu yëpp yàlla tàggatal la ko mu nekk ci say service suuf si itam mu def ko ba mu dëppoog sag nooyu xam ngeen ne nun doomu aadama yeneen biddiw yi nu gën a jege mooy yeneen planète yi benn bu mu ci mën a dëkk amul ndax ndax moom lim soxla fi mu ne moom la garab yi di sànni moom it li muy sànni moom la garab yi soxla fi ne garab yi buñ fi jóge woon ci suba sa doomu aadama yi faatu hmm. oxygène lañ soxla ñun doomu aadama moom la ñu noyyi garab yi ñoom la ñuy wax gaz carbonique yi ñoom lañ soxla buñ ko buñ génnee oxygène bi ñun doomu